du dëgg ci professeur une toute dernière question rek euh, euh, ci ci déclaration bi ba léegi euh, gis nañ Ousmane Sonko dégg nañ ko mu mu wax ne li nga xamante ni moom mooy jëm ci benn vidéo bi nga xamante ni ministre de la justice daf ko ko envoyé woon moom mi ci gannaaw bi nga xamante ni nag benn jeune boo xam ne dafa bokk ci Pastef doon saaga nee na ministre de la justice daf ko envoyé vidéo bi mu ne ministre de la justice na def liggéeyam est-ce que tey. Euh, en tant que analyste ragaloo euh, ñu ñu dundaat la la la même chose bi ñu doon dund ci euh, li ñu jàppoon moom la ñu doon dund ci gouvernement Macky Sall la même mise de de de l'exécutif ci ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di moom moo di judiciaire bi. non non j'espère que loolu du ñu dina encore même erreur du ñu reproduire les mêmes erreurs. Mm-hmm. gis nañu lu mu jur ci ci ci ci ci situation politique bu Sénégal bi. Euh, ak ak ak situation compliquée bu mu bu mu indi. Mhm. Euh, ma yaakaar ne nag séparation yooyu dafa war a am pouvoir yëpp dañu war a séparé wu. Mhm. justice bi ñu war ko organiser de telle sorte def nañu ay assises mhm. am na ay euh, ay recommandations yu génn ci assises yi ak yeneen yu fi réflexion yu xam ne defoon nañu ko loolu defee synthèse loolu je pense que mën nañu ay ay ay réformes yu mu xam ni yu dëgër lay doon. yi nga xam ne dafay dëgëral justice bi de cette sorte que justice bi euh, chancellerie bi ak ak euh, euh, tribunaux yu mën a mën a mën a mën a am distance de telle sorte que ni ministre de de la justice du du mën a interférer si ak dossier judiciaire et donc je pense que ni loolu c'est très important mën nañu séparer pouvoir yi de telle sorte que ku nekk mën a jouer ce rôle sa partition pour que mën a déportation Sénégal yi mën dem hmm. merci beaucoup professeur. merci beaucoup. ok ñu koy jaajëfal. bu merci beaucoup merci ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon euh, professeur Moussa Diaw nekk analyste politique xam-xam màcc lool lu jëm ci li nga xamante ni moom moo euh, jëm ci wàllum euh, politique. moom la amoon amoon ci doon jokkoo ak moom ci li nga xamante moom moo jëmoon ci sorti man Sonko boobu lee di koy jaajëfal bu baax a baax di xaaral rek ñi nga xamante ñoom.